nanu fexee ba école yi nga xamante ne bii ñoo fi am ñu def ko ay école yoo xamante ne dañ koy def école ay étage ba nga xamante ne bii yenn école yi dinañ leen mën a dajale yi si des ñu soppi leen def leen yeneen école ak ay lycée ak ay collège parce que nag seetlu nañu ne tënk lycée fi nekk lycée yi fi nekk yépp ñu ngi est nord amul lycée ouest amul lycée te loolu xam ngeen ne jaaduwul. bu ñëwee mu jeex. ci biir programme am Ismaïla mu ngi ciy wax li mu ciy wax mooy bëgg na ci biir école yi ñu def ay cantines scolaires yoo xamante ne bii dina tax élèves yi bu ñu waree ni yendu. du ñu dox di ñibbi ba seen kër léeg-léeg añ bi du du pare ñu mën a añ ci biir école yi bu ko defee ñi nga xamante ni amuñu ay moyens wante nekk ci biir programme boobu monsieur Ismaïla Madior mu ngi mu ngi bo wax ne doomi néew ji doole ji nga xamante ne bii ay élèves yu xarañ lañu la ñu utal ay bourses yoo xamante ne bii wut fourniture ak ay bagages école dootu leen jafe. ci biir programme boobu monsieur Ismaïla Madior Fall mu ngi wax ne nañu fexe ba jumtukaay yi ñu war a jox école yi ak matériel bi ak setal gi ñu ko war a setal nañ ko teel a def avant ouverture des classes bu ko defee ubbi tey jàng tey bi ñu wax doon du doon wax kese mais lu ñuy jëfle doon ñu ngi gis seen bopp Ismaïla Madior Fall mu ngi wax ci biir programme ne nañu defar ay centre polyvalent bu ko defee ñi nga xamante ne bii seen jàng sorewul noonu wala ñi xam bëgg na def formation ñu mën a def formation yoo xamante ne bii dinañ leen mën a insérer socialement ba am liggéey dootu leen jafe loolu nag mu ngi wax ne aussi ci programme bi étudiants yi nga xamante ne bii jóge nañ fi ci Tëngéej ñu ngi étudiants yu xereñ war a dem université Saint-Louis wala Thiès wala Ziguinchor wala feneen ñu utal leen ñu accompagner leen. utal leen ay dëkkuwaay accompagner ci seen jàng ba ñoom ëllëg ñu mën a doon yeneen Ismaïla Madior Fall waaye léegi ku def boobu programme ngir éducation xanaa ñun ñi nga xamante ni ay ay parents d'élèves lañu nekk ay acteurs nekk ay jàngalekat nekk ci biir bi xanaa du ñu def lu dul ànd ak moom ci boobu programme kon loolu moo tax ñun jàngalekat yi. gis na sunu njariñ mu ngi ci Ismaïla Madior fa mu ngi ci li mu bind bës fas yéene koo def bés bugg yàlla defee mu nekk ci kaw bi kon du def lu dul wax ne ñun sunu choix porté nañ ko ci moom moom mooy sunu candidat.